ñun Macky Sall war nañu Mansour Faye mi goram di suñu dëkkandoo war nañu parce que dex gi bu ñu taxawee ni ñoom ñoo ko bëgg buñ ko sëkku woon ba mel ni duñu am accès pour pour di ko ñun ñoom li ñu wax amul li xew occupation illegal ñun baadoo bu ñuy xaar legal fi la ñuy dee duñu am fu dëkk parce que lépp luy legal ñoom occupé nañ

bi ñuy démolir gisoo ñu laal benn borom barke baadoole yi dong te baadoole yi ñun ñu mu toll nii ñun état ñun ñooy ñun ñooy état ñun baadoole yi ñooy état état bàyyi leen si ñun bis bu ngeen soxlaa ñun ngeen di woo bis bu leen joxee ngeen ñuy dóor man nag wax dëgg neexe la dama pas personnel Mansour war nga ñun waa Saint-Louis géej gi moo toj sunu kër nu jënd fii tabax bi ñu demee ba di am yaakaar si la Mansour fay ñëw commencé ni ñu jaay doole ñun amuñu lenn lu dul géej li nu amoon yëpp xëpp gën a sunu bâtiment nu ñëw nii tabax ba toll nii nu bëgg ko toj si nii lii dafa met lii dafa ñaaw ñu new di doole lanu amuñu dara amuñu dara géej lanu yaakaar baadoolam moo sonn dañ ñu war a mën a dimbali parce que ñu dañoo yorul dara Macky Sall ñun dañoo yaakaar ci moom am yaakaar ci moom dëkk bi nag dëkk réalité dëkk cosaan la ku ne xam na ngaleel ngaleel du suuf suñuy foyee du suuf soo xam da ngay ñëw rek tayee nga na am fi soxla lii ba ñëwee ne hôpital lañ soxla ak marché ah ak euh, seen ay affaire wu xam marché ak ak dañuy loolu baax la parce que dëkk boo déggee ñu a tabax école tabaxal la marché yooyu da nga naan lii lu baax la. fii kay li ñu wax nee nañ mu aéroport la ñu commencé ba ci biiru Ngalel am na kër yoo xam ne ñu ngi ko tudd sax te wóor na ne kër kër yooyu sax bañ bëgg liggéey sax ñoom dañoo soo juddugul. Ngalel fii du ma nëbb de ay baadoolo yoo xam ne ndar amuñu dara. am ñoo xam ne géej ga lañ nekkoon dañoo nangu seen ay kër am na ñoo xam ne yoruñu daara daara sant yàlla fii lañ amee tey kër fii kër yi ñu fi jaay am benn kër bu ñu fi jaay fii kër yi dañ koy may xam nga kër ay fi ñaata ay 600000 350000 ay 400000 ay 1 million dafa sax nga dagg di maye xanaa yàlla sax buy rey dana sukuraat mais dañuy ñëw rek un bon jour toj toj comme ça réclamé woon waxuñu ñu dara li métti na si koo xamante ni da ngay jóg di dal di daanu si luyaas nga dëkk say fam yëpp di location te mënuñu wax lenn loo xam mën nañ ko jàpp joxuñu delloowuñu kër joxuñu terrain joxuñu dara te ñu dañu jënd rek dañu jënd dañu jaay au moins ñu wax loo xam mën nañ dégg mais ñëw di toj samay bagage mënu ma jël mënu ma jël dara lii dafa metti te ñun ay ndaw lañu am ay kayit di leer ay kayit leer nañ am naa ko amna, naa ay kayit di valable ñun dañ toog ba si yàgg saa ni affaire aset naa seen kër la ak yooyu mais en plus nañ ñu wax su ko defee ñun daan dinañu dinañu jël li nga xamante ni tey say ñun mais ñun dañ ba commencé toj dara xaar lan xaar nga di xaar ñu lan mooy ngalan fii cité bi ku ko xam ne fii dara nekku fi woon deex la woon euh, ay nit ñi xam dañu immigré woon am na ñoo xam dañu immigré woon 2000 ba tey fi tey ñoom ñuy liggéey ba tey taqale pour defar seen kër fii tey état ni tey tey da kay nangu lan mooy ku nekk si yoon ko am titre foncier la moo nekk si yoon nan xool kër yi nekk si Sénégal yëpp ñi si amul titre foncier nu nangu seen kër yi ñun baadoo la xam ne ne àdduna ju yàgg ba ñu am titre état moo waroon démontrer

suñu bakkan yi bëgg tuuti rapace da ngeen ñu def néew.